centre de formation professionnelle bu molin moo leen di inscription yi ci année scolaire 2023 2024 yéen ñi bëgg jàng filière restauration couture coiffure bu leen ko CFP bu yombal yow mi am niveau 4e secondaire wala lu ko mën formation at am certificat d'aptitude professionnelle CAP ci filière yépp yow mi am niveau sixième secondaire wala lu ko di am attestation de fin de formation mën nga def formation juróom-ñaari weer ak niveau boo am bu boobaa di am certificat professionnel de spécialité CPS si domaine commis pâtissier commis restaurant ak esthéticienne kon nag bul ko waajal gaawal formation bu neex ak centre de formation professionnelle mu ngi nekk ci cité Lobat Fall diggante seen o Bank of Africa ku plus bëgg renseignement mën nga ci 33 834 11 06 wala 77 614 50 74 wala 77 105 34 47 mën ngeen ñu bind itam ci